daal di nag euh, songu communication bi nga xamante ni Ousmane Sonko nee na nag moom la amoon ci mars 2021 taxoon nag ñu bëri ñàkk seen bakkan euh, ci euh, coow li nga xamante ni mooy coowal Sonko Adji Sarr bile waaye nag bu sañoon du ko wax moom Khalifa Diakhaté journaliste bi daal di nekk directeur télévision ITV Euh, ci benn page spécial la ñu diffusé sa ITV moom présentateur ba daal di rappeler li nga xamante ni mooy fee yi fa mu jóge waaye na communication bu Sonko ginaaw ba ñu divulgué ay accusation yu Adji sax ab sortie boo xam ne daanaka euh, dafa euh, daal di nag euh, nekk lu viral ci réseaux sociaux yi notamment ci nag mbokki Ousmane sonk yi ndax journaliste bi depuis lool ñu ngi ko daal di ciblé ay attaques di joge fu nekk lu ne yàq nañ ko ko moom Khalifa Diakhaté ci propos yooyu nga xam ne moom la ñu daal di nag dégg mu wax ko ñenn ñi ne ko nag yaay fenkat bu mag a mag a mag daanaka doo waxkatu dëgg àddina wër nga këpp yow yaa ci dàq nag wax loo xamante ni du dëgg euh, moom Khalifa Diakhaté lu ne daal yàq nañ ko ko ci naka loolee mu daal di wax Sonko boys yi nekk ci réseaux sociaux yi page yi ñu mel dañ ko daal di nag waxante partagé ko euh, vidéo bi ci quelques minutes yi mu daal di wax nag ne euh, Sonko bu njëkkee woon li nga xamante ni nag moom mooy dal gi mu wax woote démb su ko njëkkee woon amaana duñu egg fii yëpp ci quatorze morts yi waaye nag euh, ci mu doon li mu doon woote non à l'intimidation euh, non itam ci li nga xamante ni moom mooy euh, wàllum nag xoqatal gi ñuy xoqatal dañu ko wax a daal di bañ nañu daal di génn nañu daal di nag résister moom résistant bu mu doon woote ci kaw ndaw ñi ñu daal di koy def nag ci seen diggante ak takk der yi daaw si sa bu nu ko wooloo Khalifa jaxate loolee nag la jàpp ne nag moo woon problème yi yëpp waaye nag bañu daal di nag euh, ba ma Sonko waxaatee lu nu mel ni euh, mbir yi dafa mel ni nag am na ab changement boo xam ne nemmeeku nañu ko ci euh, ndax tey jii daanaka nag amut li nga xamante ni mën nañ ko daal di nag reproché euh, communication bi ne nag kon problème yi yëpp ci communication Sonko la daal di njëkkee moo tax tey lu ne yàq nañ ko moom Khalifa Diakhaté euh, bu nag ITV xas nañu ko saaga nañu ko wax nañ ko lu nekk ñu fàttali itam ne euh, li waral sax plateau boobu le mooy tey Ousmane Sonko dañ ko doon déglu ca kanamu fa li nga xamante ni nag moom mooy doyen des juges maam Diallo doon ko déglu tey ji ci tribunal bu Ndakaaru ginnaaw coowal li nga xamante ni moom mooy nag coow li daal di aju ci Sonko aji Sarr bile ñu moom Ousmane Sonko ñu koy tudd ci mbirum viol Adji Sarr masseuse bile daal di koy nag di euh, accusé de viol ak menace de mort ginnaaw attaque lu topp moom Ousmane Sonko ñuy sàkku ab audition wam moom sax mu doon ko yuuxu fu nekk di ko sàkku tey ji nag am na euh, ndax daal di nañu koy euh, nag déglu waaye nag buñ sukkandikoo ci avocat am sax di maître Bamba Cissé kenn ci ay avocat am